asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah mardi 28 mai 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi sunu làmb nag tey foo la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi nag tey dafa mel ni daal jàppal xëy na wan ñu booy ñang Ama Baldé Gris maama Lamine waaye tamit kii def sport réew mi day sunu làmb xëy na wan ñu ko ak ki nga xam ne mooy directeur technique bi nga xam ne moo lu jëm ci wàllum lit muy Abdou Badji waaye bu dee Boy la moom yëglikaay bi na fi mu nekk nii day lu jëm ci wàllum footing maanaam daw si place ak ay contact ak box maanaam fi mu nekk nii daal ci loolu la nekk mettil na ko gën xeetu goo xam ne nii daal maanaam bàyyiwu yooyu yëpp ñu fi lim daal yëglikaay bi ne bi di sunu làmb daal mu ngi nuy xamal ne Boy Niang fi mu nekk nii ci loolu la ne mu nga ci susukaay bëri di def lu mu mën yoon ngir buñ ca yeggee digganteem ak Lac de Guiers numéro 2 daal mu wan ko ne ko man xale laa te maa la gën a bëgg lii nuy def sunu làmb xëy tey dinu ko wax mu mel ni jamono jooj mu koy def nag mbër yi mu ca àndal bi na ci na ca kalmu nduur ñu naan ko garaam bañik kii nga xam ne nii mooy zambala tamit mu nga ca liggéey ba ak mu mel ni ki daal ñii ñooy ay sparring partenaire am sunu làmb xëy tey ko wax ña koy taxawu nag di seetlu liggéey ba mooy dégool baay ba ak Cheikh Ndiaye entraîneur ba ak kii nga xam ne mooy Adama Diop mu mel ni ñett ñii day ñoo ko wër muy liggéey lu méttee métti moom booy Niang keneen koo xam ne moom mbokkam na wala mu di dëkkandoom di Ama de mu mel ni moom day bu doon day carte daa mel ni kon perte na waaw saison bii moom bu doon carte la ciy def day wala la mu ci bëggoon moom amu ko parce que yëglikaay bi ne na ña mu ciblé woon maanaam ña mu tegoon ay bët jàpp na ñii day war na mën a bëri ak ñoom daa mel ni nag loola mu jul am ci saison bi nga xam ne moo nar a jeex nii wala moom mooy waaj a jeex ka ca jëkk mooy Gris Bordeaux moo Lo Bombardier Tapha Tine mu mel ni kii daal Ama Baldé yëglikaay bi nee na day jàppal raté na li nga xam ne nii moom moo di la mu bëggoon wala saison bi mu mel ni kon daal saison bii moom bu méttee métti la doon ci moom sunu lamb xëy tey wax nu ko keneen koo ñeneen ñoo xam ne moom seenub saison wala li leen di xaar ci kanam nar naa métti muy ay rendez-vous yu rëy a rëy muy écrit lamsaar xëy tey wax nu ko bu dee Quench la digganteem ak Diène mu nga koy xaar kii nga xam ne nii mooy fëgal digganteem ak double moteur bu bés moom tamit mu nga koy xaar maama Lamine digganteem ak kii nga xam ne moo di jokkeel bu Fatick mu ngi koy xaar waaye Aline Diop numéro 2 digganteem ak njaaxum itam mu nga koy xaar mu mel ni ki daal Lamsaar moom boo bëggee dégg dëgg day li des ci saison bii ñu tëj di waaj jeex nii day boo bëggee dégg dëgg sunu làmb ne na day saison la boo xam ne la leen tey xaar ci desit gi moom lu méttee métti la kenn koo xam ne nii moom daa mel ni moom champion d'Afrique yi yàpp na leen moo tax sunu làmb ne day beneen champion d'Afrique la fas yéenee jàmmaarloo waat muy daanee Auguste muy champion d'Afrique gagné Pakala par ay avertissement muy champion d'Afrique léegi nag que mu jubali moo di rëg-rëg kooka daal la dox jëm ca kawam fas yéene jàmmarloog moom sunu làmb xëy tey dina ko wax leneen loo xam ne tamit sunu làmb xëy na ñëw ci dina ko wax mu mel ni ki daal face à face bi nga xam ne amoon na kere day doxoon ci diggante ñoom góor a sok ak Tyson 2 Fara ak Ngeer mu mel ni ki sunu làmb ñëwaat na ca mu mel ni ki daal boo bëggee dégg-dégg moom dëkkante ba wala diggante ba metti na ndax kii nga xam ne nii 2 moom mu ngay wax kii nga xam ne ni day mooy góor a soog lu leer Tyson 2 ne na ko yow amoo fit wala nga osé sax naan da ngay xeex ak man loolu moom ñeme ko góor a ne ko da ngay wax rek yow balaa ma lay daan dama lay duma ba nga nooy ma door laa daan sunu làmb xëy tey wax nu ko jamono jooju tamit ngeer mu ngay wax faraa ne ko jàppal de li ma lay wax bu la dara bet ndax nag ci plan yëpp man pare naa ci Franc ne ko waaw loolu day jàppal nangu naa li nga wax waaye man mii day maa sama yoon di dem de te yaakaaru ma xëy tey dinu ko wax koo xam ne nii moom moo bëgg a kale ñoo xam ne dañoo jàpp ne retraité nañu mooy ministre bi yore wàllum tàggat yaram gi nee na daal ñiy retraité wala ñi mu jàpp ne dañoo retraité ñuy ay directeur technique te nekk ci sport bi daal daa mel ni ñoom fi mu nekk nii day dañ leen faa bëgg a jëlee sunu làmb xëy tey dinu ko wax wannu Abdou Badji ak ministre ba mu mel ni ki nag sunu làmb ne ne Abdou Badji day loolu ministre bi dara jël ci décision bu amee mbaa moom dina ko jig ndax nag kon dafa mel ni moom mooma day wàllum retraite googa kon bu ñu ko jëlee maanaam daal jàpp ñi nga xam ne dañoo jeexal te te nekk ay directeur technique moom ministre bi fas yéene leen faxas mu mel ni ki kon Abdou Badji loola boo sàgganee ngelaw la mën na ko faa bañ a bàyyi waaye jamono jooju ñuy xalaat loola ca moom Abdou Badji nag mu ngay xalaat moom nu muy réfléchir wala nu ñuy xalaate daal ngir problème yi nga xam ne am na ci lutte olympique bi ñu mën koo defar maanaam jubbanti ko ba mu tollu ci wala boog moom mu mel na nu ko bëggee sunu làmb xëy tey dinu ko wax keneen koo xam ne moom ñëw na ci moom muy kii nga xam ne nii moom moo di kal waaw kal moom écrit ka écrit zap moom nag mu ngay wax ca combat bi ku gën a marqué moo di kii nga xam ne nii moo di Tafa Gueye ak Yékini wala boog Tyson ak Yékini nee na daal lii bokk na ci li nga xam ne gën na koo marqué ci làmb mu mel ni kii daal tey loolu moo fi ñëw ci bi di sunu làmb ak ay photo yoo xam ne day photo yu reetaan lu la wala photo yu neex Garga Mbossé ci 2005 ak taxawaay ba ak na mu jëlee position waaye Garga ci 2018 mu mel ni ki daal des na beneen photo boo xam ne yëglikaay bi da caa ñëw Yékini senior ba muy am juróom-ñaari at maanaam sept ans ak Yékini senior bu 2006 jàpp 2007 mu mel ni ki day àddina moo gudd tànk te mën a dox nu nekk daal lay ñëwee waaye nit itam day soppeku de loo gën di màgg rek xel mi gën di màcc yaram wuy gën di soppeku lépp di soppeku mu mel ni ki daal àddinaa ngi nii àddinaa ngi nii yal na nu yàlla dimbali ba ñu màgg ba nekk ay màgget ba def li nu war a def wuyu di suñu borom fekk ñu am téeméeraat ak nàngam yàgg lool yaakaar naa dina neex Talla Ndiaye. kii suivre Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ginnaaw nag bi ñu defee revue de l'arène ba pare jàngat bi nag tey ñu ci doon ànd ak ay Aïssatou mais nag fan yi ñu nekk ci repos waaw ak tombé tamit yàlla def ñu toxu si fii ci point 1. xam nga yooyu yëpp tax daal ah waaw ñu xaw leen a may tuuti ropp waaw Babacar nag moom mook Talla Ndiaye xam ngeen yéen ñu gën a xam ñun duñ bàyyi <laughs> ñun ay bàyyi faal lañu dañ ko yi waaw day metti quoi ñëpp waaw di comme ni ngeen ko xam nga revue bi tey moom comme ni ngeen gis u Boy Niang bi nga xam boo xam ne saison ren ah saison bu nar a metti la da doon ndax ñi mu sibloon a rek mooy que ni ah bu dee la kaada Boy Niang la moom ngay liggéey loolu ci mu nekk muy footing bi di box beeg yooyu ak contact yi ci la war ne ak ñoom Zambala ak ñoom Grand Bagnic ñoom Ziza ak ay entraîneur am Dégol ak bokk ak ñoom Cheikh Ndiaye yooyu loolu moo lay wan moom it jox na ko gëdd waaw loolu parce que mbir mi combat mu jëm moo toll noonu bu dee ki nga xam ne ne tamit mooy Ama waaw moom xëy na ah, bu defee année balance dina métti ci làmb ci waa làmb ndax xëy na bokk na ci mbir yi nga xam ne menn mbër bëgguñu muy def année balance mais Ama Baldé dafa bokk ci mbër yi nga xam ne yaa yaakaar nañ ne moom année balance bu ko dee def lu gën ci làmb parce que mbër la bi nga xam ne saf na xorom am na bëri macha allah doomi mbër la ba pare itam mbooloo mu bari topp na ko mais nag olof dane ku amul yaay nàmp moom comme lii fi sës tamit ah dañ koy wax mu muñ ko rek te préparé wu saison déwén parce que làmb ji moom jeexagul adversaire yaa ngi fi làmb jaa ngi fi te yaa li ñu ñaan daal mooy yàlla may ñu gudd fan ak wér ñun ñëpp ñuy fekkee lépp su ko defee rek xëy na ci kàttanu suñu borom lu loo jotagul rek xëy na bés baa yegseegul wala heure baa mais su heure bi jotee a ci directeur technique ñu wax ne a wàcceeg yu mel ne ki ne nag dafa laal làmb muy Abdou Badji ci li sunu làmb wax waaw Abdou Badji nag moom mooy directeur technique bi nga xam ne moo yore wàllum làmb waaw loolu nag ah, ministre bi nag mooy jël ay décision bu dee gridal tamit nañ moom ay champion d'Afrique yi am na ci ñoom ñaari victoire muy mu jëmaat ci beneen champion d'Afrique boobu itam comme li ma daan wax rek Talla Ndiaye dañuy yónni yàgg rek ñu xool bu ñu demee ndax la mu defoon da koy defaat wala rëg-rëg da koy bañ waaw muy combat bu nar a méttee métti mais daal loo ci mën a dégg dañ leen di nuyu di leen ziar yéen internautes yi suivre Leewtoo yépp di leen wax ne ñun moom tout le temps rek dañuy bëgg di dox ci seen ay service parce que li ngeen di xaar ci ñun bu ñu sañoon dañ leen koy jox comme ni ngeen ko bëggee parce que yéen a ñu fi tax a toog suñu amee doole wala ñu ñuy seetaan bu dul woon ak yéen yi ñuy suivre la kenn ñu kenn kon du demee nii yéenay suivre di abonné seen YouTube bi di liir vidéo yi di topp revue bi ak lépp lu mën doon kon amuñu seen fay dañ leen di ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm fu ngeen mën nekk si àddina bi mais bu ma fàtte waa bitim réew parce que boo gisee ma leen di nuyu taala lu bëri parce que dañu nekk ay doomu Sénégal nekk bitim réew daan seen doole xam nga ñooñu nag dañ jaar di fàttaliku muy ku mel ni El Hadj Ndour depuis maa ngi koy nuyu ngañ sow États-Unis ñoom commandant Fall nekk fii Kant Diel Diop Khady Rose Ndiaye mu Yaay Sarr moom tam mu ngi ba ki nga xam ne mooy Serigne Ndiour tamit nekk ba Italie moom tamit ma koy nuyu di ko ziar muy sama gain ak ñoom Ndongo Fall ak Benzema Dem ak Mamoudou gi taalibi Serigne Babacar Sy Ousmane Ndiaye Mamadou Kaolack Diallo ca Lisbonne nuyu ñëpp Mamadou waaw nuyu ñëpp daal taala ñaanal ñëpp jàmm ñëpp ak sama yaay soxna Anacim Bintu Fall tam maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu fans club Babacar groupe WhatsApp bi du ma leen fàtte di nuyu tamit fans club Leewtoo bi leen wax ñoom tamit mention spéciale mais taala daal ma Macoumba Diouf sama mag sama kilifa maa ngi koy nuyu meru lat mbeng ak soxnaam Louis Senghor moom tamit di sama jigéen di sama lépp di ñaanal ñëpp jàmm Talla Ndiaye daal di jox gars yi rek suba incha allahu rabbi ci beneen rëfi ci kàttanu suñu borom